asalaamaaleykum chers amis internet yéen ñi nga xamante ni yéenay seetaan seen émission bi nga xamante ni moom mooy euh, Grand Buzz alors Grand Buzz nag di ñu leen koy présenté fi nga xamante ni moom mooy Dakar Net alors suñu invité bu tey nag mi ngi nii toog ak ñun muy assan assan salaamaaleykum. waaleykum salaam soxna si na nga def. ñu ngi lay nuyu di la dalal émission bi nga xamante ni moom mooy euh, Grand Buzz. ça va maa nekk si turam ak sant maa ah, di kont am kontaan ak mbégte teewaat fii. Mhm. mag ak ndaw góor ak jigéen et puis di tamit remercier suñu téléspectateurs yi ñu seetaan. d' di la dalal suñu bu baax suñu biir émission bi nga xamante ni moom mooy grande buzz. alors comme je le dis tout à l'heure ñu ngi ci ànd ak aussi ki nga xamante ni moom mooy sama sama sama collègue euh, maa ngi lay nuyu bu baax a baax mm. iso waaw Mariama moo fay la di nuyu aussi grand Assane mi nga xam ne tey moom la ñu invité suñu premier numéro donc comme ni nga ko waxee di grand buzz. donc ci fii ci Dakar la muy émission boo xam ni macha allah et puis mu nekk un plaisir jàkkaarloo yow. Mhm, mhm. alors Assane euh, dama lay dama lay bàyyi nga présenté wu waaye tamit nga wax ñu kan mooy Assane Azoulebou. Assane Azoulebou dëkk Bargny juddoo fa yaroo fa màggee fa. Mhm. def école à la classe CM2 mu bàyyi dugg ci milieu artistique bi à l'âge de presque ay quinze ans yooyu presque ay jamonoy quatre-vingt-six. ma nekk ci di góorgóorlu jaar ci ASC yi jaar ci bu koñ yi. après mhm. nag lañ muy jël nag yóbbu ma xam ne lii moom sama bëgg-bëgg lañ yóbbu ma na mu jàngi académie des arts. Mhm. def presque ay quatre ans cinq ans après nag la réplier ñi bisewaat doon liggéey ci benn société bu ñuy wax ama Sénégal après bi sama société bii nag bu ñu commencé am ay jafe-jafe si la réplier waat ci art. Mhm. si la créé benn pièce bu ñuy wax kër gi tas na. muy sama première après deuxième pièce nag mooy pièce su Azulobo. Mhm. après si laa génn nag si laa amee si la biir si ñi xamee. Mhm. nag continuer sama art. d' accord alors euh, euh, bu ñuy waxee Azu Azu dañu bëggoon xam exactement lan moo la dugal ci milieu bi nga xamante ni moom mooy milieu comédie. théâtre comédie li ma ci dugal c' est trop facile parce que Baye Pël. Mhm. ñoo bokk benn kër. jabaram ak sama yaay ñoo bokk ndey ak baay. d'accord may yeewu di gis Baye Peul sa façon de faire acteur temps yi si ma fi ci Baye Peul mhm. virus bi nag c'est fa la ma duggee d'accord ma dem ba gis ni man tamit bu ma demee école tamit même noonu laay defee donc paa bi moo la inspiré moo ma inspiré ma def def théâtre d'accord muy Baye Peul mhm. parce que on vit ensemble dans une maison d'accord Euh, euh, bi bi la feeñal ci bëtu sénégalais yi mooy Azulabo. Mhm. comment comment comment est venue l'inspiration pièce u Azulabo comment loolu noonu la juddoo. bon pièce u Azulabo dama doon def théâtre musul traversé sama bopp nag dama doon def théâtre di bind ay pièces sama boo tax ma ne sama première pièce mi wax ci kër gi tas na mais dama gis benn affaire bu ma dérangé woon metti woon ma. am un parce que nu la ko mën a waxee un de un de mes sama sama dëkkandoo la ngi dëkk Bargny mhm. mais bu waxee rek da nga naan kii góor jigéen la parce que xëy na peut-être niñ koy yaree la xamul luy góor jigéen tàmmul góor jigéen te et puis am na fi quelques baat yoo xam ne ñoom bu bu rombee bët boobu lañ koy xoolee bu waxee bët boobu lañ koy xoolee mais seen ñun waa Bargny ñëpp d'accord nañ ni kii du góor jigéen mais yar biñ ko yaroon mhm. moom moo moo moo deman ba dafa xawoon a inféminé mm-hmm. waaw léegi nag après ma ne kii est-ce amul ay téeméeri moroom ci Sénégal ñun mm-hmm. sama devoir mooy jéem a combattre loolu pour sensibiliser pour faire savoir les gens que ne am na ñoo xamante ni ñu ci biir société bi reçu ay éducation yoo xamante ni baaxul ba ay doomu aadama de bàkkaar ci ñoom mm-hmm. pour ma arrêter nag loolu sama li nga xam ne man yàlla may na ma ko ci sama métier ma jëm cee waslu àq. Mhm. loolu nag laa toog di bind pièce bi di imaginer di bind di bind di bind di bind bi ba mu sotti ma jël teg moo tax pièce Azoulou boo amul fenn foo xamante ni boo xoolee am na fa euh, rapport ak ak ku góor parce que toujours maa ngi sukkandiku ci gaañ boobu gaañ boobu xaytam yi si ëpp ay jigéen lañu. Mhm. si ëpp ay jigéen la jigéen lay fréquenté jigéen lay waxal waxi jigéen la yor parce que jigéen na ko yar jigéen la affaire jigéen la gën a xam daal. Mhm. moo waral ci pièce azulu boobu boo xoolee toujours man damaa vocaliser wu ci jigéen ñi. au contraire que góor ñi samay ennemis la ñuy doon. loolu moom moom mayoon inspiration. ma doon participer. te il paraît que Azula bu nekkul yow yaa ko waroon jouer aussi. Azula boobu waaw du woon man du woon man parce que man ah, scénariste rek laa woon. maa yoroon film bi pièce bi bind ko ba mu pare mais bi ma ko bindee ba mhm. mais ni mu interpréter rôle bi. baaxul na baaxul parce que d'après man expérience bi ma jot a am. Mhm. ci culture ci ci affaire art ni mu interpréter pièce bi baaxul. te kii joué rôle Azulo boobu moom moo mën a joué rôle Azulo boobu à 100 pour cent pour sensibilisé bi war a dem dem pour nit ñi bàyyi xel ci pièce bi. Mhm. léegi nag après la obligé forcé nag euh, man def ko. Mhm. dem di répéter géej en temps bu guddee ma tëdd di xalaat. di bàyyi xel suñu waa kër seen façon de faire parce que bari ñu laa dëkk. Mhm. di dem des fois géej bu ñuy ñi xëcc mbaal may déglu jigéen ñi seen parole. Mhm. seen i acte may na di répéter loolu ba répéter que ba dem ba wóolu sama bopp daal ne actuellement daal li ma doon ut. Mhm. am naa ko fees na del si man ma joxe date de tournage. d'accord ma joxe date de tournage tamit laaj nañ ma kan ma koy jouer mais waxuma leen woon parce que dama amoon fermeté ci sama biir liggéey. d'accord di expliquer ba pas bi nga xam ni moom mooy pas hélas ba yàlla na ko yàlla moom bi mu ñëwee tamit demande ma kan mooy joueur lu Azul boobu ma ne ko bon ñëwagul. man maa ngi wax ak moom ne ko ñëwagul mooy suñu première séquence mooy bi ma koy wax tàccu noonu. man daa ko solo jor fooy bi bi di expliquer moteur ça tourne action rek ma teg fooy bi rek avancé xuus moom tamit mu doon daanaan macha allah. macha allah waaw fekk si ma jox ma li ma soxle ma delloo ko ko. Mhm. film bi am na am na am na am na buzz am na réussite comme on dit. Mhm. comme ni ko émission bi di bay grand buzz ça mhm. fait def na def na buzz bu rëy fii ci Sénégal mais est-ce que ce message bi ci ci biñ ci bëggoon lancé carrément est-ce que message boobu les Sénégalais l'ont perçu ak yow ni ko xalaatee parce que après il y a de bruit quand si am naa ci déception d'une part ci ni que Sénégalais yi la majeure partie et je pèse bien mes mots tout le monde mais la majeure partie nañu recevoir. message bi ma leen yónnee. Mm-hmm. waaw bi ma leen recevoir bi ma leen ko yónnee parce que selon suñu coutume moom moo permettre wul xëy na peut-être euh, yenn yi ba ñoom pour la première fois am ñu fi jouer genre rôle yooyu. rôle yu ni mel. Mm-hmm. mais pas acte bi Azulo boo doon posé ci doxin bi ci waxin bi ci parole yi. ak ci mm-hmm. agressivité bi. amul woon raison pour la laquelle nag Sénégal la majeure partie ñoom dañuy recevoir rek ñoom li ñu gis mooy gisuñu scénario bi. gisuñu jàngale bi mooy li ñu gis mooy Azulo boo. góor jigéen c'est ça qui m'a fait mal mais li taxoon man ma sacrifier sama vie juste pour éduquer pour yee leen pour gindi leen pour delloosi leen ñoom niñ ko recevoir mm. dafa ute ak man li ma ci jublu woon ça m'a fait un mal mais nag bon à travers nag communication yi explication yi mm-hmm. dañu dem comprendre la façon donc je respect pour pour éduquer leen mais du woon pour asilo boobu affaire de góor ji ça n'a rien à voir mhm. homosexualité ba pare même ci loolu sax dañ ciy ñëw euh, nee nañ que ni euh, sa sa mariage affaire bi yàq na sa ménage maanaam sa jabar dem na ci maanaam divorce am ngeen divorce alors que amoon ngeen njaboot et tout mi ngi doon nekkoon ci sëyam di sëy mais bi euh, li nga xamante ni moom mooy théâtre Azoula boo génnee daf ci am déception ba nga xamante ni dafa jël ay bagages am demande divorce est-ce que loolu c'est non c'est pas vrai c'est pas vrai de un man awma doom mhm. benn doom la ñu mus a am mu décédé waaw léegi théâtre Azulobo boobu man maa ngi liggéey benn société bu ñu wax Ama Sénégal ñu def film bi ak Diop Fall expliqué ba pare ñu def film bi ba pare mhm. mais film bi ni mu génnee ñi ko jot a seetaan tellement que niñ ma gisee dafa leen dépassé ñoom ñoom en tant que acteur culturel yi nekk Bargny muy troupe bi. bi ñu nga seetaan daf leen xaw a dépassé. tellement que ni ma assumé ni ma réussir rôle bi. bon moment boobu maa ngi sama jabar. ma jël film bi ma jël ko denc ko. ñu nekk ci mini DV. ma jël film bi ma denc ko denc bi ne sama jabar laa ko dénk. wax na ma sonn génne ko ma ne ko noonu ma jël ko dénk ko moom mu jël ko denc ko. maa ngi liggéey temps yu si benn société bu ñuy amal Sénégal mais société boobu après dem nañu presque un an lépp film bi pare na mu ngi ma denc. Mm-hmm. mais mënu ma ko woon génne parce que xaaruma ci woon ay xaalis ak leneen quoi dama ko defoon rek par amour. dama ko defoon pour aider pour sensibiliser. mais du woon pour xaalis. d'accord mais nag après société boobu maa ngi fi doon liggéey maa ngi percevoir sama salaire maa ngi sant yàlla. Mm-hmm. mais société bi bi mu arrêté bi mu tombee fayit dama xaw a am tuuti mal entendu ak sama jabar. Mm-hmm. ba tey li ma lay wax fi bi génnagul mi ngi ci mbiru deewee mi mu denc. d'accord bi nga xawee am mal entendu man d'accord mais moom bi muy jël ay bagages am ñibbi seen kër dafa yóbbaale mini DV bi. bi mu ko yóbbaale nag moom moo ma o à peu près ay un mois di defaraat ay bagages am gis mini DV bi moo ma oo rencontré ma bi ma rencontré mun ma pourquoi pas mënoo génnee lii. mu nekk non garaawul ah man affaire yi intéressé maa ngi ci yeneen damay seet leen lu ma joob ay affaire yu théâtre yi daal moom mooy loolu quoi mun ma génne que rek kenn xamul on sait jamais xëy na peut-être ni nga amulee xaalis ni boo ko yàlla mën na la ci daab jàppale. moom en personne sama jabar ji ma divorcé la moom mooy imposé ma ne ko ah garaawul fekk xamante woon naa ak Pape Demba mun moom mu ni ma pourquoi pas munoo ko proposé Pape Demba d'accord ma proposé Pape Demba mu génn mais quant à moom moo tax mu dé moo tax mu divorcé mhm. c'est faux au contraire moom moo tax mu génn mhm. ok mhm. sama ama am doom c'est faux aw doom benn doom laa musa am mu génn àdduna à bas yal grand san li gën a li gën man li ma gën a impressionné ci film bi mooy à chaque fois quand il y euh, bu bu coowal góor jigéen juddoo Sénégal rek film bi day ñëwaat théâtre bi je peux dire day ñëwaat. au devant de la scène. Mm-hmm. Mm-hmm. on a on a entendu pas mal de gens. Mm-hmm. yoo xam ni. Euh, ils sont indexés directement je me citer leur nom ku ci mel ni que euh, grand Pape Faye. nekk nekk nekk artiste ku ci mel ni que tamit la fois passée génnoon nga benn sortie par rapport ak benn sortie bu Mamadou Mohamed Ndiaye defoon donc tous ces gens là après nga am mu am benn genre je peux dire benn critique boo xam ni c'est un peu négatif si si si je peux le dire ainsi loolu noo ko noo ko noo ko noo ko noo ko jàngatee. waaw mais am na am na yoo xam ne ça sonne mal dans l'oreille hmm. bu fekkee xëy na peut-être moom lay wax la fois bu fekkee génnee nga benn film. dina am ñu ko accepter dina am ñu ko rejeter. du mm-hmm. Sénégal pas Sénégal mais àdduna noonu la day am des fois oui am non. Mm-hmm. bu fekkee ne nit nga koo xamante ni da nga am esprit ouvert il faut nga accepter ñi nga xamante ne lay critiquer accepter ñi nga xam ne tamit dañoo ànd ak yow mais li ma mënul comprendre en tant que acteur culturel moom Mouhamadou njaay ku ne xam na ni artiste comédien la. Mm-hmm. depuis très longtemps. théâtre xale yi. depuis théâtre xale yi. comme ku parcourisé aar la ku xam ku mel ni Pape Faye mooy président de tous les artistes comédiens du théâtre sénégalais ñoom du ñu wax ci théâtre lu nit di laam-laamee kon ñoom bu ñu jëlee jël scénario Azulu Bo di ko dendalee góor jigéen dama naan loo trop nag c'est trop raison pour la laquelle ma génn mais yàgg naa dégg baatu góor jigéen laa góor jigéen góor ñi ça ne me dérange pas parce que parce que comme man maa sacrifié sama vie. Mhm. pour aider pour sensibiliser il faut nangu ñenn ñi ñu may critiquer. donc ce conflit ak Pape Faye foofu la jógee. foofu la jógee parce que mënuma loolu léegi nag ma ne génn na parce que bi ma doonee Assane ba pare musuma joué rôle góor jigéen musul am. Mhm. ça sonne mal nag si ko am esprit fermé pas esprit ouvert góor jigéen ñaar ñu góor ñuy ñuy sëy la mhm. mais azula bi mu joué. dafay wax ni jigéen warul yar góor bu ko yaree ci benn façon yarin bi jikko ak ka nga miin c'était ça ndaw ak ka nga yar mhm. yarin bi problème bi éducation laa wane foofu nañu xool ni ñuy éduquer ma ça n'a rien à dafa am différence totale sax mais mhm. mais tey aussi je je je je reprends les paroles de Mamadou Mohamed Ndiaye qui disait que bu démb doon tey mhm. doo jewaat rôle boobu si si c'est à refaire dama koy def moom laa lay wax ni wax naa ko confrontation mhm. la preuve en est que man maa ngi def benn série boo xam ne cent cinquante deux cinquante deux épisodes la te typiquement Azulu Bo la cent pour cent comédie parce que defuma kon yow critique yi saat saat saat non c'est normal nga recevoir leen mais mënuma doon du ma prophète mhm. ba ñëpp war a apprécier Azulu Bo il faut mu am ñu critiquer mais c'est très sensible ici mais sensible ci nañ gis nga xam nga sensibilité bi li ñuy wax mooy sensibiliser dañu am esprit ouverte da nga gis ci théâtre Azulobo fenn fa Azulobo fóonee góor. dafa am fu mu raayee góor. dafa am fu mu solee perruque fu mu am fu mu solee ay coquette dafa am fu mu dend góor dafa am fenn foo xamante ni am na dara loo xamante ni c'est typiquement inféminé Azulobo def ko ñaari mbir nga may wax Azulobo daa tàccu daa dox doxi góor jigéen. Mm-hmm. seen koñ amul ku ko fay def. koo xam ne yow ça su et du góor jigéen. Hmm. loo may raxal dañ koy éduquer. pourquoi Sénégal mënuñu am esprit ouverte dañ naan théâtre azulu boobu non c'est trop dafa sensible xam gis nga bi muy tëdd gaayen bi non c'est c'est pas normal gis nga bi muy fóon gaayen bi mais c'est pas gis nga li mu sol perruque bi waaye c'est pas normal gis nga coquette yi mais je kii konk amul fenn fu nit mën a rapprocher azulu boobu ci ay théâtre est-ce que le Sénégal kon sujet tabou yi moo ñu moo pas sujet tabou c'est esprit fermé ak selon ñun suñu coutume daf ñuy conditionné ci benn affaire ñu dem ba dugg ci loo xamante ni daf ñuy gis nga mille 2010. dañ ma bàyyiwul xel te dégluwuñ ma depuis 2010 la affaire homosexuelle yi commencé relever petit à petit te kanam la jëm je pèse bien mes mots te xaw ma dinaa ko fekkee. xaw ma duma ko fekkee billaahi wallaahi taalaahi je pèse bien mes mots. azu li ngay wax dinañu légaliser homosexualité fii Sénégal. azu li ngay wax c'est c'est légaliser nañ ko ba pare sax parce que ñoom ñi ngi def lépp lu ñu lépp lu leen neex ah. dama ni la mais yaa ngi def lu neex si biir réew rek mais Mariam pour man légalisation cette information là elle est elle est de taille ah. mu ne homosexualité dañ ko légaliser. ci fii 10 ans fii ci réew mi xaw ma dinaa ko fekkee xaw ma duma ko fekkee. je pèse bien mes mots et je peux homosexualité dinañ ko légaliser fii Sénégal. léegi yow lu tax nga wax loolu. c'est parce que samay source la samay preuve la. Ah, mais bu fekkee am nga source sa veut dire que ah, yow yaa ngi am peut-être benn benn benn benn waxtaan bi yaa ngi koy am ak ñoom. su ma doon waxtaan ak ñoom. Mhm. wala di jëflante ak ñoom. wala di mhm. digaale ak ñoom. Mhm. du ma toog fii. ah kon noo xamee ne dañ koy légaliser dans dix ans dans cinq ans. mais mais mais on ne peut pas tout dire. on ne peut pas tout on peut vrai mais bu fekkee xëy na peut-être yow melowoo ci si seen mbir dafa am côté boo xam ne da nga fay yem fa ngay yem du da ngay da ngay da nga leen da ngay xam di wax de dafa am foo yem mais man li ma la mën a wax xam nga woon naa la fois passée ñoom doole bi ñu am ay sàmm jikko yi. ils approché. sa si plusieurs fois te bu fekkoon accepté woon naa dinañu gis Azulo boo ailleurs góor jigéen bu torox yeewoowul Sénégal. Mm-hmm. góor jigéen buy joué ba pare def émission ba pare jigal jox ko paas yeewoowul Sénégal. Mhm. góor jigéen buy doxee rond point boobu fii yeewoowul Sénégal amul góor jigéen boo gis ci mu torox góor jigéen boo gis macha allah. mais say source bëggoo ñu ci waxtu. non je je me ci avancé mais li ma la mën a promettre. Mhm. te je peux défier quiconque et je pèse bien mes mots homosexualité ak ku ko mënti daraja boo nit mën a am. dayo bu mënti am regroupement bu nit mën a am mun mënuñoo fexe ba duñ ko légaliser Sénégal la preuve à nekk ma jox la benn indice mm-hmm. ñan la ñan ñooy légal ñan ñooy légaliser suñuy loi suñ koy suñ koy watee. ensemble ensemble ñi fa nekk ñëpp du ñuy musulman. de déedéet. bu amee chrétien neel cinq personnes. Mm-hmm. bariwul waaye d' accord nga ni diiney chrétien diiney musulman ñëpp ñoom ñëpp nanguwuñu. nanguwuñu ko kenn nanguwu ko. kon donc boole leen ñoom ñëpp que ne ñoom. ay nit lu ñu yoo xam ci diine bi accepté wul li ñu góor jigéen pourquoi ñu accepté rapidité am rapidement di di di di di di di di di di wate loi boo xamante ni dafay criminaliser viol te nangu wañoo wate loi buy criminaliser homosexuel yàggu leen ko fee jooytu Mm-hmm. amul ay mbooloo yu fi jooytu taxu ñuy indép place de l'indépendance soble l'obélisque ah mais kaay kaay kaay ma wax la nag euh, euh, ah, bi bi bi seen président bi ñëwee président États-Unis Obama ñëwoon na fi euh, waaw y a des années de cela ñëwoon na pour wax si wax na ci ak monsieur le président Macky Sall mais bi mu ci waxee gis nañ que ni Macky Sall n'est pas d'accord déedéet yaa ngi juum non il n'était pas d'accord déedéet bi mu waxee déedéet Macky Sall pas d'accord déedéet. ok pareeguñ vous êtes mal informé. d'accord ak duñ ko def ak jamais au plus grand jamais ak pareeguñu kuy liggéey nag te pareegoo ku teg projet te pareegoo bul sa kilifa laajee am nga droit ne pareeguma. booy liggéey benn affaire. Mhm. di ko togg. Mhm. te pareegul. Mhm. sa kilifa parce que Obama du n'importe qui. du président Guinée-Bissau Congo Brazzaville Togo Bénin Burkina Faso de. président États-Unis la. bu jógee ba États-Unis gis nga seen avion boobu caaxaan ak ay lii yëkkatiwu ko mm-hmm. déplacement am mm-hmm. du caaxaan bu déplacé wu ñëw ba aéroport Yoff mm-hmm. gaare ñëw ba Sénégal waxul économique waxul pétrole waxul dara Macky ba mu nekk naa mu nekk légaliser homosexuel publiquement et il ose de le dire publiquement waxu ko ci biir ne waaw parce que ñoom seen dëkk boobu ñoom loolu du dara ci ñoom. moo tax ko waxee publiquement nag léegi Macky Sall naka pareeguñu. Mhm. ça ne veut pas ko mus a def. mais ci ñun dañ koy déggee en tant que musulman. ça veut dire que duñ ko def. déedéet en tant que nag ñun. ex peut-être Macky Sall ni mu waxee loolu lañ dégg mais man ni ma koy déggee. par exemple yow ni koy déggee. ko def parce que fii pays musulman la. gis nga du ko def. ak pareegu ma du benn dopp xale magum jëmm nga. Mhm. <laughs> mais mais mais mais Azou say source man man say source jamais. <laughs> waaw war nañ ci wax tamit bon ñu mën koo xaaree buñ koy légaliser d'ici combien de temps. d'ici dix ans pour information bi ah en tout cas ñu ngi ci liggéey bi. <laughs> Hmm? sorewul bientôt. Hmm? incha allah te dama lay jox déjà côté côté ensemble national bi rek boo toogee si nga tëdd sa néeg war ngaa mën a imaginer pour que lu ñuy kaas fan yi ak sëriñ seeg lépp. avortement médicalisé. waaw góor jigéen góor jigéen góor jigéen jiituwu ko. waaw gis nga gis mu mel nii. Ah, ok loi yi ku nekk bëgg cee mos ko cee gis. amut avortement médicalisé la gars yi di coow fi mu nekk nii pourtant am na lu gën a yées loolu ne ci dëkk bi te kenn waxul pour ñëw criminaliser ko duñ ko xalaatuñ ko sax. Mm-hmm. mais c'est quoi le ah, mais da ngeen koy ñoom. ah non mais yow say source ah ah ah, ah surtout moom parce que boo bu ma la waxee mais bu ma la waxee en toute sincérité dama ñu la man en personne dafa am foo xam ne nit da ngay xam lu nga bokk. ak luñ la boole mhm. ak loo boole sa bopp mhm. man loolu dama cee boole sama bopp pour xëy na peut-être xam ci mhm. mais kenn bokk boolewu ma ci te bokk ma ci mais dafa ça n'a rien à man ma boole si sama bopp d'accord nit nag dangay xam la nga moom ngay jël ka la nga moomul nga baax d'accord li ma la mën a xamal te na ma ko xamal je peux défier laa la wax ne et je pèse bien mes mots je peux défier quiconque xaw ma dinaa ko fekkee xaw ma du ma ko fekkee mais loolu dana am d'accord Sénégal. ok <laughs> chers amis téléspectateurs de euh, la site internet euh, Dakar euh, net yéen a ko déggandoo nee na dans fii ak combi euh, fii ak peu de temps. Euh, dinañu légaliser li nga xamante ni moom mooy góor mbirum góor jigéen fii ci suñum réew alors mu nekk loo xamante ni aussi euh, on ne s'attendait pas du tout à ça xaaruñu ko woon ah. mu nekk lu waar loo xamante ni xaw <laughs> xaw na xaw na xaw sama chef de police ah maa ngi maa maa ngi tiit Izo mm-hmm. nga nga nga sànd ci kàddu Assane li mu wax rek waaw waaw comme ni nga ko waxee rek ñi nga xam ne ñoo ñu ñoo ñu suivre ci ci Dakar Net seen mm-hmm. émission bi nga xam ni moom la ñu duppee le grand buzz donc mm-hmm. li nga xam moom la Azou wax def na buzz nee na de source euh, donc sûre moom. ou bien de source yoo xam ni wóor na ko d'ici peu de temps. li nga xam ni mooy jëm ci wàllu euh, légalisation homosexualité fii ci biir réew mi dinañ ko dinañ ko dégg. légaliser donc ça ça ça ça ça ça ni nga ko waxee. Mhm. ma man tamit dina ma dina ma dina ma dina ma tiitloo. ndax ndax dëkk bi comme mhm. ni ni mu bindoo ak gis nga bi mu joué li nga xam ne mooy. mooy aussi kii boobu ni mu. ni mu defee li nga xam ne mooy buzz mm-hmm. tey bu ñëwaatee wax lii donc y' a y' a quelque la mm-hmm. petit à petit stratégie bu Sénégal teg population Sénégal te te benn pàcc la ci Sénégalais ñoo accepté wul góor jigéen attention. mais mais mais mais ñu bëri ñoo ko ñoo ko nangoogul. non non dama ne benn pàcc. waaw benn pàcc boobu laa bëgg a wax. ni ci Sénégal benn pàcc boobu non ëpp. Hmm? pàcc bi ko nangu. loolu nga yaakaar. non du lu ma yaakaar loolu moom mais waaw dafay wax ak ak assurance en fait yow. waaw c'est ça voilà c'est ça ça veut dire que il y a quelque chose qui est am na nekk sa ginnaaw loo xam. dafa am lu tamit. dafa loo xam la preuve à nekk ba ci école yi. waaw fa la ñu gën a gën a eh, eh, planté seen i mbir. Mhm, mhm. école ñen ñoo fa nekk lu ay xale. xale fu ñu dëkk du Sénégal ñen ñu seen i waajur. Mhm. defar ñu fi woon ay tàngal yu ñaari góor yi di sëy di ko jaay xale yi si école yi. kay aha kay. amul woon douane Sénégal <laughs> amul woon contrôle Sénégal ak leneen ak leneen ak leneen ak leneen Sénégal petit à petit. ba épreuve anglais bu ñu def. ba épreuve chaque jour nga dégg point bu ñu laal rek bu gars yi xawee soulever peut-être ñu bàyyi ko ñoo ngi monter beneen. waaw gis nga bi waa sàmm jikko yi ñëw fii pour xam ne seen seen stratégie dafa garaaw bi sàmm jikko yi ñëw fii taxaw place de l'Indépendance fees dell deux jours lañ ci teg ñu bind. benn information na Sénégal bokkatul ci pays góor jigéen yi pour déstabiliser ñi pour ñuy bàyyi taxaw ñu jox la ndax mu sedd guy ñu naan euh, na alhamdulilah bokkatul ci pays Syrie quoi waaw kay boobu ñu ngi togg loo xamante ni bii bientôt bu ñëwee mhm. di nga ne azu musoon na ma koo wax mhm. d'accord d'accord point boo laal rek mhm. fekk dugal nañu beneen point d'accord eh, mais mais balaa loolu yëpp yëpp dafa gudd waaw yéen yow jullit nga yaay wote ay loi te lii nee nga yàlla bëgg ko yoon te bëgg ko waaw lu la ko teree sañe boo koy sañe ma di la ko taseer d'accord léegi yow mais aussi merci ñu génn foofu buñ nga nga wax léegi par rapport à ça ni am na aussi yeneen yeneen projet yoo nekk yoo xam ni c'est tout à fait comédie te Azou le mooy ñëwaat effectivement lu defaat coow Azou non dafa du Azou le Beau mooy li la wax sànq Azou le Beau liy def coow nit mënumaa dut baaraam xam nga tax mënumaa dut baaraam mm-hmm. imagine toi tey jii. Mhm. imagine toi tey jii. Mhm. boobu mu toog si benn école jal suuf naan yàlla yaay nii yaay naa yaay nii yaay nii ça te fait rire. ça mhm. fait rire d' autres personnes. léegi wax ma foofu lan la joteeg góor jigéen. ok mais tàccu nga fa. tàccu góor jigéen moo ko moom. mais attends ah, quand même Sénégal nag attends attends attends déedéet déedéet dañuy waxante dëgg nag dañuy waxante dëgg mais góor jigéen bu fekkee góor jigéen ñaata góor ngay romb ñu takk jaaro xanaa moo gën a jege góor jigéen ka tàccu je suis d'accord jaaro boobu sax jaaro boobu sax dafa dafa sori dañ naan peut-être ci américains yi lañ ko jëlee yooyu noonu mais léegi góor ñi dañuy bënn seen bakkan waaw léegi nag loolu moo gën a jege góor jigéen je veux juste te dire que ni tàcc aussi dafa bokk ci seen ay mbir. déedéet parce que bu ci bokkul woon. yow doo ko jàngale. déedéet sa comédie bi ngay def. doo ko non je désolé. man li ma tàccu jëloo ma ko ci góor jigéen yi li ma tàccu maa ci jigéen. moo koy def. je désolé Assane. mais góor jigéen ñi kon comprendre leen kon. ok. kon amul góor jigéen bu ngeen mus a gis muy tàcc comme ni Azula boo doon tàccoo raaj raaj raaj eh maa la ka ñaan eh rek non amul góor jigéen buy doxee noonu Sénégal je suis désolé ok yàlla bi tey désolé ay ay ay nit ñoo toog yàlla bi désolé mais bientôt ti non ay nit ñoo toog ñu seetaan il faut qu'on soit qu'on soit sincère quand même di nga désolé ci leneen non lu ma lay wax nii ah, mooy que ni mhm. euh, gis nañ fi ay góor jigéen yoo xam ne dañuy def seen vidéo uh-huh. toog di ragaju di def yu kenn tu vois. di def ay affaire de jigéen. Mhm. loolu laa la bëgg wax que ni jigéen góor ñi. dama lay conseiller boo demee sa kër. Mhm. s'il vous plaît faites-le uniquement pour man nga jël kasetu Azulo boobu nga fàttaliku tuuti nga xool Azulo boobu comportement am. typiquement jigéen. loolu moo créé problème mu nit ñi. Mm. d'accord mais bu ko ñu génn foofu tuuti Assane. ñu génn foofu tuuti. alors ñu euh, laaj la aussi beneen question boo xamante ni man amal na ma solo waaye tamit dina amal solo ñi nga xamante ñoom ñoo toog di ñu seetaan euh, alors Assane euh, dañuy wax mbirum góor jigéen bu ñu waxee loolu rek xel yi di dem ci Assane ak yi mu joué yooyu noonu mais aussi est-ce que yow en tant que Assane en tant que góor yàlla en tant que. Euh, euh, euh, sénégalais en tant que musulman Assane naka goo jigéen gisoo que ni artistes yi Sénégal yi ñoom ñoo leen di gën a may doole maanaam bu ñuy tëgg ñoom ñoo fay dem ñoom ñoo fay nekk ñoom ñooy xaritoo ak ñoom ñoom ñoo leen di yëkkati ñoom ñoo leen di ñooy ànd ak ñoom jigéen ñi aussi jouer ci benn rôle boo xamante ni c'est extraordinaire parce que am na jigéen yoo xam ne ku nekk góor jigéen du ñu ànd ak yow ñoom il faut que ñuy fréquenter góor jigéen ñi il faut ñuy toog ak ñoom il faut que ñu leen di gis ñuy mën a reetaan di kontaan loolu yow lan nga ci gis en tant que nag man boo pour na que nit ku nekk sa choix quoi peut-être xëy na peut-être yaa ngi fréquenter koo xamante ni man bëgguma ko wala kenn mhm, mhm. bu dee jigéen ñi tamit am na ci mhm. am na jigéen ñoo xamante ni som seen lépp comme Azulobo théâtre Azulobo léppam jigéen la jigéen la doon fréquenter jigéen la xam comprendre ça ne veut pas dire que lu yàqu ko yàq Mm-hmm. mais nit ku nekk dina am xëy na peut-être comme yow da jig jigi loolu li ñu olof naan lu dagg lu ne morom lay fekk. Mm-hmm. góor jigéen bu ñu koy wax see parce que li ko sunu boroom def góor moom la bëgg a dindi def doon jigéen. Mm-hmm. n'est-ce pas te olof ne lu dagg morom lay fekk kon day fay dem rapport si jigéen ñi. jigéen tamit du du ñoom da leen di def riir. da leen di def ree góor buy ñëw naan laa yow diw yow nangam sa sa ça leur fait plaisir comprendre. loolu rek la mais ça n'a rien à voir mais. et ça doit faire plaisir. ça va doit pas faire plaisir. mais nit ku nekk tamit da ngay am looy respecté ci moom. d'accord yow xëy na peut yaa ngi ànd ak jigal man jigal neexuma. Mhm. sa mhm. comportement ay attitude de ak façon am neexuma. Mhm. te pourtant sa gaañ la. d'accord comprendre. nit ku nekk tamit. am na ko ci biir mbirum artistes yi nit ñi xaritoo jigéen ñi. ah euh, artistes yi la ñu ay ay artistes la ni nga yàlla bula la tu dafa am lu mu koy dëxuñu waali muy ak kamut ak kamut googu nag day doon nit ko xam ne da ngay recevoir dof mhm. jinne malaaka mhm. ku wir ku wirul ku doyadi caga diiñ ku lesbienne n'importe qui ngay recevoir parce que yàlla moo ko doom aadama mhm. bu la yàlla joxee martaba wala dayoy doom aadama ni yow topp la nga gis mbooloo mi bu ci simpi kenn kenn ku nekk dafa am nu koy recevoir loolu rek la mais sana doy bi ñoom dañuy dooleel góor jigéen wala ñuy dooleel ca caga wala ñuy dooleel lesbienne wala ñuy dooleel ku jub wala ñu déedéet mbooloo moo tapp seen ginnaaw mm. dañuy dajale ñëpp téye d'accord sama dernière question Assane Izo nga may ma boobu mm-hmm. euh, yow est-ce que da ngay xeex góor jigéen wala da nga leen di encourager man personnellement moom mm-hmm. góor la jullit la doomi jullit laa mm-hmm. góor jigéen fu mu jaar duma fa jaar d'accord séqu maag góor jigéen wax mhm. aw maag ñoom affinité mhm. te bu ñu takk woon suba taxaw leen depana pour xeex góor jigéen ma takku taxaw pour xeex góor jigéen d'accord bokku ñoom dara bëgguma ko bokkul sama diine d'accord doomi goro doomi jullit la azu projet yi ñu ngi gars ngi xaar parce que depuis depuis depuis azu lobo mhm. gars yi namaat nañu wax nga ko léegi namaat nañu waaw projet yi moom comme ni ko waxee rek euh, am na looy waaj de wax nga am na lu may waaj ñaa ay ay mbir sax yu may waaj parce que maa ngi def benn série boo xam ne cent cinquante deux la si cent pour cent Azulobo maa ngi tamit euh, laaj benn conférence de presse pour suñu tournée internationale ak Laye Ananas bi ñu defoon. Mm-hmm. Euh, partenaire dañu war a ñëwaat fii normalement du yàgg. Mm-hmm. du yàgg ah lii de mu bokkul si ngor. Mm-hmm. comprendre du yàgg ñoom dañu war a ñëwaat bu ñëwee. dañu def conférence de presse dañuy préparer tamit pour replier waat. am tamit ay yeneen série yoo xamante ni ñoo ngi koy préparer wax feeñ. waaw ñoo ci projet daal ñu ngi koy et puis j'ai j'ai vu une vidéo boo xam ni euh, c'était je ñoo ñoo ñoo ñoo la seetaan sur scène. et et et maanaam elles étaient émerveillées. effectivement ci sa ci sa ci sa talent dégguñu làkk mais femme bi day insister. que ni que ni que ni da nga am. mu nekk plaisir pour pour ñëpp effectivement au <laughs> <laughs> pour dire que ni a comédie parce que xam nga tamit dafa am yoo xam ne yombul bu fekkee dañ la yóbbu ci lu mel ni Norvège nga war def quatorze pays. Mm-hmm. 14 pays yëpp léegi yow artiste comédien la seule personne ko xam ne artiste comédien lañ la jëlee yow mbooloo la lu toll nit grand théâtre lu tollook ñettam ñu saal la ñu wër la comme genre yi stade mhm. yow rek yaa ci digg bi avant groupe bi ñëw yow dañ la dañuy signé contrat bi avant d'ici deux astafurlah dix minutes wala quinze minutes public bi war nañoo ree boo réewul la ñu rejeté sa contrat nga ñibbi te war nga kaa def quatorze pays waaw léegi nag il fallait que ñu def ñu toog xool artiste Sénégal yëpp ñu xool ñu ne Azoulo Ba am na fu ñu ko teg bu ñu jëlee yóbbu ma ma ñëw pour la première fois ma dugg ci lool takk casque yi su ma nee <coughs> dafa mën ne pour man Sénégal ñu ngi dégg tellement que matériel bi ñu yor te léegi man ñii ñëpp ay la ñuy làkk man dong ci dégg olof léegi il fallait ñu ree et je l'ai macha allah je l'ai réussi parce que dugg rek <laughs> nga war a wax ak ñoom. mais à travers geste Azou Lo moo ma may ndam foofu. macha allah félicitations comportement am après ñun ñu commencé léegi nag kooku nag papa mooy ministre de la culture bu Norvège. d'accord kooku moo fi war a ñëw novembre. léegi nag moo tax ne dañu relever contrat bi à cause de man parce que ñoom mënuñoo et parce que loolu genre yi genre yi wan man soo la. ñu mm. ngay expliquer li ma dund Sénégal théâtre Azulo boobu bi ma koy bind ak li ma ci jànkonteeg fi ma ci jaar loolu laa doon expliqué am keneen ku toog ko xam ne lu ma wax moom moo ko leen koy traduiral mhm. ñoom ñuy xàqataay di ree parce que dafa leen jëlee kaw xamuñu imagine te xam nga rek mhm. et puis j'ai réussi de les parce que suñu fierté la ñun ñëpp moom bu ah. réussir suñu réussite la ñun ñëpp. alors merci beaucoup chers amis téléspectateurs dañu lay bàyyi nga tàggoo déjà. waaw di leen sant invité bi ngeen may invité juste pour wax leen. mais émission bi grande buzz émission bi et puis kontaan naa ci daal kontaan naa bu baax vraiment. di leen wax na ngeen préparé yéen Sénégal yi Azou Le Beau mi ngi ñëw d'une autre façon. Mm-hmm. pour la première fois ci sama carrière artistique ñu gis beneen facette bu Azou Le Beau noonu xam ne ça n'a rien ak Azou Le mm-hmm. mais am na buy njëkk a génn xam ne 100 pour cent Azou Le la. mu mm-hmm. ngi daw. léegi ñoo ngi koy lancé publicité bi mais am na beneen boo xamante ni ça n'a rien à voir ak Azulobo bientôt pour pour juste pour vous faire savoir que bo il est capable de incarner n'importe quel type de personnage n'importe quel type de rôle donc merci beaucoup chers amis internautes bu Dakar Net donc yéen a ko gisandoo lii mooy seen émission donc grand buzz noonu nañ koy defee chaque fois dañu am benn invité boo xam ne dañ dugg en profondeur waxtaan waaye tamit mu xamal ñu kan ci li mu nekk ak ay mhm. projet waaye tamit ñu waxtaan ci li nga xam ni mooy actualité euh, fii ci biir réew mi mu nekk mbégte ak bànneex ma ci doon ànd ak ki nga xam ni mooy sama sama sister Mariama merci beaucoup. merci beaucoup Izo merci. alors nous on vous donne dans votre euh, site internet euh, Dakar Net inchallah dans votre euh, émission Grand Buzz merci beaucoup et la prochaine revoir.